asalaamaaleykum wax internaute yi ñuy seetaan ci Bambey TV C'est seen émission parlons politique de recevoir euh, Abdoul Aziz Diom, le nouveau maire de Diakhar biñ ko nuyoo ba pare dalal ko ci plateau bi dañ koy dañ koy bàyyi mu nuyu internaute yi ñuy seetaan ci biir activité réew. asalaamaaleykum euh, mbokku Bambey asalaamaaleykum internaute yi ñuy seetaan yépp à travers Bambey TV ñu nekk ci département Bambey yépp. Euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar man la Abdou Aziz Diom donc euh, di maire commune u Caxar kontaan bu baax nag soxna Maymuna ci invitation bi jërëjëf. Euh, merci beaucoup Abdou Aziz bi ñu la félicité ba pare dalal la ci plateau bi dañ lay bàyyi nga présenté wu tey Abdou Aziz ku la xamul ba waroon présenté wu face à à Maymuna Sidibé loo koy wax kan mooy Abdou Aziz Diom. Euh, Maymuna question bu metti la ak bu yomb à la parce que wax ci sa bopp présenté yow yaay kan doon na yomb ci ñi nga xamante ni jaxasoo nga ak ñoom bokk ak ñoom deret wala nga bokk ak ñoom liggéey ñu ñëw présenté la mais dina yomb tamit euh, en toute humilité mën nañu wax ne Abdou Aziz Diome ndaw la bu dëkk Kër Sayar Lambaay nag laa juddoo wante li des ci suma ndaw Kër Sayar laa ko passé Eh, jange école sama cycle primaire eh, sama cycle moyen ma def 6e eh, CM Jéeri fal bima fi jógee nag ma dem xombol donc fa laa eggalee suma cycle ba am ba am baccalauréat mhm. bima ma bac tamit la dem université Cheikh Anta département géographie bima paré département géographie ak sama master ci la tenté concours ENA cycle B donc yàlla def ma réussir ko euh, nekk contrôleur des impôts euh, présentement donc euh, après parcours boobu académique ak professionnel nag ci lañ soobu ci conquête commune bi ba yàlla suñu borom jox ñu ko loolu la ñuy wax loolu lañ mën a tënk ramasser ci présentation mhm. mais nag yooyu yëpp mën nañ jàpp ne rek doomu dëkk bi laa ndongo laa ku fi juddoo màggee fi bëggu fi lu baax tey ba suñu borom def tey ñu nekk maire mhm. xaj na ci présentation bi gàtt na ndax bëggoon naa vraiment nuyu waa commune Caxar yépp euh, jiital ci kilifa diine yi kilifa aada yi wante nuyu les deux villages yépp ak amo yi nuyu également ñi nga xamante ni ànd naa ak ñoom ci liggéey bi mm. euh, ba ñu réussir li nga xamante ni c'était un grand défi maanaam ndam li ndamu Caxar la donc euh, Caxar gi yépp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di jaajëfal ñépp di nuyu tamit ñi nga xamante ne nii samay adversaire la ñu woon ba dimanche mais bi dimanche rombee nekkatuñu samay adversaire ñun ñëpp ay doomu caxar lañ maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tamit yeneen projet yi ñu entreprendre yépp ci seen dund suñu borom sottal ko te ñoo am ci ndam jërëjëf may mun a Euh, ñu ngi remercier Abdoul Aziz tey suba ba tey ñu ngi am ay ay impression sax si yow mhm. euh, ku nekk jox na ma présentation en fait ñu bari envoyé nañ ma message jox ma présentation mhm. mais bon présentation bi ni xawma nuñ koy waxé ci olof tugg ne du teew ñuy nala Dakar présentation bi ni mo gëna a exhaustif euh, mhm. exhaustive kon machallah euh say say impression après victoire sa victoire éclatante impression bi ñëk moy sant yàlla d'abord sama xol boo fa demee cant rek nga fay fekk ndax euh, c'était pas évident au début euh, ndaw lañ boo xoolee parcours académique bi ñu def ak professionnel ak percé dans la politique ci temps bu gàtt la c'était pas évident mais euh, la vie n'est que combat àdduna yëpp xeex la et que sans sacrifice ñun dañu ko tàggataale moo tax bi ñu yàlla mayee li ñu doon bëgg dañoo njëkk a sant yàlla mais sant yàlla am satisfaction nag ci ci ci population bu caxar bu baax a baax ndax euh, euh, seen doom laa mën dara xam dara ñëwaat ci askan bi ñu dalal ma ak ak seen ay loxo mais ñu ubbil ma seen xol mais également ñu bàyyi ma ak seen xel bàyyi ma xel ci lu bari ba projet politique bi bi ñu leen ko proposé ñu valider ko donc sentiment ak impression bu may am sant yàlla la mais remercier population Caxar mais nee naa leen keroog bi ma gañee ndam li nag ndamul Caxar la ndax laaj ci sa biir ay mbokk ñu jox la yomb na sama ndam c'est dans la futur sama ndam ci kitus bii ñu ma jox pour cinq ans foofu nag bu ma eggee ba ci cappaandaw gi foofu la waa Caxar wala tàllal suma loxo xam ne Abdou Aziz mi ñu faloon am na ndam wala amul ndam te njort naa njort bu rafet ne day tey nii euh, émission bi mënoon nañ ko tàmbalee ci bilan lan nga def Caxar laata sax ngay laaj ngay laaj maire mm-hmm. donc tey loolu mën nañoo jox impression bu rafet ci ne li ñu jëm euh, loolu ay prémisse la woon ci li ñu jëm ne dinañ ci am ndam te su boobaa nag loolu mooy nekk suñu ndam mm-hmm. waaye lu ma am ci impression ak sentiment bu may animé c'est un sentiment de satisfaction mm-hmm. mais di sant bu baax tey gërëm population Caxar ndax ndam li seen ndam la Abdoul Aziz woon wër nga ndombo équipe bi fa nekkoon noo ko noo leen caxabalee ba daan leen loolu laa bëgg <laughs> xam tey loolu loolu loolu loolu c'est pas am na lu ci xamante ni neex na expliquer mm-hmm. ndax yaakaar na dëkk bi mhm. boo fi judd kenn umpalewul kenn boo fi juddoo màggee fi yaroo fi ni nga mel ni ñi xam nañ ko mhm. euh, caxar nag ak bawal dafa am marchandise mu fiy jar marchandise yu yar teggin mhm. ak sutura yërmande te li nga am nga bokk ko ak nit ñi nag ndax yàlla bu la boolee ci ab commune nga juddu fa gënoo fa ndey gënoo fa bàyyi gënoo fa aw sant gënoo fa leneen yàlla seppi la am lum la may loolu boo muusee tuuti di nga xam ne du sama ndimbal man kese du sama ngóoro mais sutura yàlla ak yërmandem la bu la yàlla taw leen nag di nga wëlbati ko waat demaat ci sa ay mbokk donc wër ndombo gi lenn li mën nañ jàpp ne doom la ju dellusiwaat indi yar ak teggin ak li mu am mu bokk ko ak waa Caxar wane leen demul fenn yéen la bokkal kon bu fi laajee ab cër war nañ ko koo jox la ca des tamit euh, politique nekkul lu ñu foraatu wax dëgg si yàlla jàng nañ ko xam nañ ko toog nañ ay weer yu baree baree bare sax wala at di gëstu di xool nan la ñuy pénétrer le champ politique caxarwa mm. lan mooy obstacle yi lan moo mën a nekk lan moo nekk tendance yi ak euh, lan mooy scénario bi ñuy favorable loolu yëpp étudier nañ ko jàngat ko mm-hmm. moo tax bi ñu jógee tamit ak li ñu bëgg a def ñu ci politique ñu bëri nag jàppoon nañ ne bon euh, dañuy talax talax ni rek di dem xale xale laa mais mm-hmm. xale bu waajal boppam laa macha allah ci côté yépp nag ci ndimbalu kilifa yi ak ñaan yi mais nag lii moom man bettuma woon très sincèrement bu ñu te dëgg rek te yàlla tax jàppoon naa ne élection yi formalité la woon te xaj na ñaari vote bi moo tardé lu bari ak euh, yenn circonstances yi mais lii moom bettuma woon ci ne ci ne dañuy dañuy dañuy dañuy am ndam ci kàttanu yàlla. lan moo la tax a ñeme caxaar parce que disons Jaxardu commune bu naw tey jii bu ñuy wax douze communes de Bambey yi quand on pense à Ngoy on pense tout de suite à Caxar. à Caxar oui. Mhm. mais ku ñemewul say mbokk <laughs> da dangay da ñeme ay jàmbur te yaakaar naa ne ñeme say mbokk boo juddoo ñu waajale la ni ñu la war a waajalee. Mhm. ñeme say mbokk mooy li jaadu mooy li normal mhm. mais ñeme bi mën naa ko interpréter autrement lan moo la motiver. ci nga ñëwaat Caxar. impliqué waat fa ñime gi. fofu nak di nga xam bo bo duggé ci suñu commune yi suñu commune rurale yi nga xamante vraiment lu bari manké na fa ca xam am nañ jafe-jafe ñu ngi dund ay jafé jafé nga def ak 1 an ak ñom rek jambar nga parce que nak metti na té monde rural bi dañuy souffrir tout le temps du mané ay sollicitation mais tout le temps ay urgence la yooyu lool en tant que doomu dëkk bi war ko faj mm-hmm. mais dama gëm né Euh, li ma wax léegi nii moo ma gën a motiver lu ma am danaa ko bokk ak caxar kon su ma amee wala ma mën dara waruma daw suma ay mbokk du ma jël sama yaay ak suma papa yóbbu yóbbu yóbbu yóbbu yóbbu Dakar wala ma yóbbu réewu taax déedéet fi ma wate mbootu fa laay dellu si waat li ma am yépp ma bokk ak ñoom li mbëri naan guddi guddi seen dëkk mais man guddi guddi caxar laa gëm caxar moo nekk ci suma ADN donc moo tax dugaat fa laaj leen ndombu tànk politique demee ko ci yar ak teggin ak li ma am jafewul ci ben côté aw ben benn obstacle vraiment bu terewoon ma réussir à cette mission à mi parcours donc Caxar mhm. sama lépp la euh, dem fa politique fa jafewul woon ci man te réussir nañ ko may mu mel ni euh, yaa ngi yaa ngi soulever euh, problème yi yi am ca xar mhm. problème yi bëri na ca xar mhm. ñun ñu fay dem de mhm. temps en temps am na lu ñuy lu ñuy seetlu mais problème bi gën a visible bu gën boo xamante ni ñëpp a ngi ciy waxtaan mooy problème foncier bi à ca xar wala foncier wàllu suuf dafa complexe nekkul caxar kese mais boo xoolee actualité bi c'est un peu partout euh, au Sénégal loolu li koy waral euh, suuf dafa nekk léegi euh, benn domaine boo xamante ni ñëpp ci lañ jëm parce que nag boo xoolee euh, évolution bi c'est à partir à la limite à partir de l'alternance en 2000 la le président Abdoulaye Wade la yee nit ñi won leen utilité njariñu suuf ne mën nañ investir malheureusement nag approche bi ci mairie di def ak collectivité territoriale yi day nekk approche bi nga xamante ni souvent du nekk la meilleure approche euh, parce que day favoriser li prédation foncière day favoriser spéculation mais day favoriser également xagn ñi nga xamanté ay la ñuy euh, li ñuy def ci kër euh, parce que waxati ko bëgguma ci sax ci sama campagne sama campagne maîtriser domaine mais dama yakarna li ci matoon a wax wax naa leen ko ne naa leen suufus caxar ni ñu ko defee jaarul yoon ni ñu koy daggee jaarul yoon ni ñu koy ni ñu koy gérer tamit baaxul jaarul yoon mënoo dem ci ab dëkk euh, quatre-vingt pour cent wala quatre vingt pour cent yi ci dëkk bi ay baykat lañ ci tool bi ñu am ci la ñu yaakaare saaku dugub ci tool bi ñu am ci la yaakaare saaku gerte mën cee joxe may bu njëkk wala ñu mën cee yeew nag wala ñu mën cee def dara tool boobu wala suuf soosu nga xañ ko baykat bi bëgg koo jox keneen ci anam yoo xamante ni jaarul yoon man approche boobu aw ma ko ma ci wax lancé wala appel di wax waa caxar nañu dalal seen xel ni ma xamee suuf noonu laa ko ragale te yaakaar naa képp ko xam suuf tamit di nga ko dinga ko ragal kon suufu caxar waa caxar suufu caxar waa caxar yéen laa koy bàyyeel loo leen ci bëgg rek ci seen suuf incha allah ci noonu laa cay àndee ak yéen yoonal ko la ca des nag. ku wax tay une collectivité territoriale bu melni ci caxar dengan nga xamanteni beurul ay ressources mhm. di nga mën euh xol ay ressources alternatives ya des ressources endogènes da ngay xol sa dëkk limu am ci potentiel nga mën ko revaloriser you bu ñu you you you tey li am ci potentiel nak ay layoon suuf mo ci ñëk mhm. mais ñun daan programme euh, def nañ ay proposer nañ ay axe programmatique yu yu yu yu yu yu innovante yo xam Sénégal do fi gis fenn ñu wax ko parce que média ngeen yor yéen a ngi gëstu li xew ci Sénégal mm-hmm. ñu ngi xeex suuf di def prédation foncière fu ci nekk tey mën nañ tudd Djilor mën nañ tudd Mbane mën nañ tudd feneen mm-hmm. mais ñun format bi ñu wax tey c'est vrai que suñu liggéey tamit daf ñu permettre ñu nekk en contact ak beaucoup d'investisseurs mais bi ñu demee bay dugal axe programmatique ci wàllu investissement nan lañ nan la mën a caxar mën a capter ay investissement réceptacle bi nekk le foncier nan lañ ci jàngatee bawal xam nga ne suuf nawet lañ koy xëccoo ñetti weer ci fukki weer yi ak ak ñaar kon mën nañ comprendre ne juróom-ñeenti weer yi kenn du xëccoo suuf dama leen koy wax ci sama campagne ma ne leen période nawet de bu ma jaaree fii ak sama oto ci tool yi dañ naan ma dañ may dàq ak ay gopp ne ma yaa ngi yàqu suñu njeef gi mm. mais période noor boo jaaree ak sa oto dañ naan la mbaadoo moytul garab yi wala mbaadoo dugg si kam ce qui veut dire que booy proposer tamit ay axe programmatique da nga koy taayee sur mesure par rapport aux réalités yi nga yi askan bi di dund ñun ñu ne leen mën nañu waxtaan ak ay investisseur de mais jamais ñu bind kayitu suuf ñu délibéré jël kayitu suuf jox ko investisseur déedéet format bi ñu retenir te nar cee bëgg a nar cee bëgg def le marketing territorial moo di lan moo di mën nañ proposer investisseurs yi benn cycle de production boo xam ci 8 mois la nga ñëw nga ñu signé convention béykat bi la commune ak investisseur bi ñu signé convention boo xamante ne nii dañu naan la tool yi kat ah mën doo fi def benn installation bu lourd doo fi tabax doo fi def dara loo xamante ni dina tax ëllëg baykat bi bu ci bëggee dem du ci dem. Mm-hmm. deuxièmement forage yi ku ne xam na ne léegi mën nga mën nga mën nga def forage ba pare te du ñu xam ne sax fii forage moo fi nekk. Mm-hmm. donc bu nekkee am nañ ay investisseurs yu ko caxar jaral yu bëgg a indi seen loxo dugal ko ci caxar pour mu soxale ko dañ leen di proposer ay cycle de production yu am 8 mois c'est-à-dire que yi mën na ñëw ñu bàyyee ko suufu caxar ci waawu béykat yi ci waawu commune bi. mu bay 8 mois bu baye 8 mois labouré waat suuf si loolu dana dundalaat suuf si dana ko mayat doole parce que suuf si nag ba léegi ben wène rek lañ koy jox ben wène moy lan modi dugub lañ koy jox gerte lañ koy jox ñebbe lañ koy jox alors que ferñent yi ci suuf si am leneen lu mu mën lu mu mën a jural su defee cycle de production bu 8 mois dal di labouré waat tool yi bàyyi ko ak béykat yi béykat yi bay sen 3 mois investisseur bi ñew labouré waat su ko defee xëccoo du am te loolu day am plus value day am valeur ajoutée ndax lan ndax dina fay investisseur bi dina fay ay redevance ci commune bi mais dinañu permettre tamit ci redevance yooyu ñu mën ci reconstituer li ñu naan le capital semencier bëgg nañ béykatu caxar euh, bala ñu eggati ci nawet ci loolu redevance yooyu ñu defal leen ci gerte bu doy defal leen ci ñebbe bu doy defal leen ci euh, dugub bu doy boo xamante ne nii dootuñu xaar ci état ak ay opérateurs yi nga xam gerte bi ñuy indil wax naa ko euh, day doon gerte rek mais dootul doon jiw te seen ay doomu dëkk tamit également ñooy ñëw liggéey fa. Mhm. donc cette formule là doo ko gisaat fenn ci Sénégal et puis c' est une formule très innovante mais nag dañ ci waxtaan ak population bi caxar faluñu moo pour ma yilif ko. Mhm. yor yet naan lii ñu laa bëgg le mooy am déedéet dañoo fal seen doom fal seen baay fal bu leen fas yéene liggéeyal mais liggéey bi yépp na leen wóor na ci jàmm am ak ci ak juboo ci dal ak ci déggoo ci lépp. Mhm. donc loolu mooy approche bu bees bi ñu def ci wàllu suuf mais daal suuf du pour nag wax dëgg si yàlla. Bambey amna valeur rek mok caxar digelo nga jël suufu Bambey bi yépp suufu caxar bi yépp di sës si Bambey ko jox ko ay kër ño xamante ne da nga violer loi bi parce que la loi est très claire ci walu attribution souf ki nga koy may dans le domaine national day dëkk ci commune bi ki nga koy may day justifier né man na ko mettre en valeur ki nga koy may tamit également amna na ay clause yo xamne bu ko mettre en valeur am nga droit retirer li nga xamante moy notification bi nga ko mais ce qu'on li ñuy gis fii tey moo da ngay jël souf suufus commune dem jox ko ñi nga xamante ne dëkkuñu ci commune bi wala nga jox ko ñi nga xamante ne vraiment bu ñu amee ay intérêt c'est des intérêts crypto personnels la ñu am si suuf loolu nag ak Abdou Aziz wax dëgg si yàlla du am caxaar waa xam nañ jàpp ni seen Baye Fall lañu on prend note mm-hmm. on prend note fii ak quelques mois ou bien quelques temps incha allah dinañ la invité waat si mm-hmm. plateau bi pour revenir sur ces propos là. Mm-hmm. Euh, Abdoul Diom euh, vous êtes apparemment jeune bu ñuy wax euh, les plus les les jeunes maires du Sénégal ci ci ci ci élection yi Vous sûrement dinañ la dinañ la cité waale war yàgg nga ci politique. Y'a une en politique depuis 2010 depuis 2010. en étudiant c'est ce que je voulais dire vous étiez sûrement. étudiant sûrement étudiant. donc euh, vous avez gagné sous la bannière de de Wallo Sénégal. de Sénégal oui. êtes-vous un PDS inné ou bien. c'est par coalition. bon on peut dire par coalition. Mhm. mais. le président Abdoulaye Wade tamit mu ngi dund yàlla na ko yàlla may fan bu gudd. dafa am un leg bi nga xamante ni ku ci nekk rek ci Sénégal. mën mhm. na ko revendiquer parce que c'est un leg démocratique. yaakaar naa Abdoulaye Wade le président Abdoulaye waat yéen a ñi doon nelaw ñëpp ci politique. le président Abdoulaye Wade tamit ci wàllu démocratie ak vitalité démocratique. Mhm. indi na ci contribution boo xamante ni tey ku nekk nekkul ni da am carte membre PDS rek tax na amuloo ci président Abdoulaye Wade tey. Afrique am na ci moom rawatina nag ndawu Sénégal mhm. li doon nelaw tey ci ñun ci politique bu yeewoo rek président Abdoulaye Wade def ci def contribution bu am solo. donc euh, par coalition la ñu demee ci élection locale yi. parce que nag politique tàmbali naa ko 2010 mais ci benn parti laa mës a nekk te ci laa nekk ba léegi. muy le MPSL du président Cheikh Tidiane Gadio ma ci profité nag di nuyu sama suñu coordonnatrice bi Adja Ñaaña Ndaw ndax depuis 2010 ba léegi bi ñu àndee ñu ngi cheminé. élections yi locales yi euh, des élections yi nga xam day des réalités locales mais plutôt des appartenances politiques mm-hmm. réalité locale locales lan moo di tey kii mën na bokk APR kii bokk feneen ak feneen te projet politique bi ñu am au niveau local ñun ko donc ce sont des élections purement locales même bu nekkee connotation ak influence bi ci leader nationaux yi di def tax na élection des élections nationales mais je crois fondamentalement que ce sont des élections locales bi ñu ci demee bi koy wajal sama objectif mo nekkone bâtir un projet politique dur et durable à Caxar yuy proposer vraiment une véritable alternative de développement yuy soppi xar kanamu Caxar loolu pour pour ñu am ko il faut que ñu and ak doomu Caxar yépp jël sen waasu jël sen xeet jël sen appartenance politique teg ne teg dëgër euh, ñu liggéey ko ci ñett at ba ñeenti at am ay intervention yu am solo yu def Caxar te lepp mën nañ ne ci walu social la parce que bi ñu toogee dañoo gisoon nañu def le social le pied piédestal de nos actions politiques ñu def ko noonu jëmmal ko nag ci wàllu politique ci xar jox ñu bopp ba deux semaines ñu war déposer candidature yi xamuñu woon man mii di wax yéen xamu woon ci ban bannière laay demee parce que li ma ëppaloon solo moo di est-ce que ñun ñooy boot parti au niveau local wala parti moo ñuy boot réponse bi nekkoon ni ñun amul benn parti bu ñu mën a boot ca xar may ñu doole déedéet ñun kay indi parti caxar dekkalaat ko mayat ko doole. Mhm. ñu dem ñu dégager ay critères euh, yu ñu a choisir ban ñu nañu ba mu nekk parti politique boo ne dina am ay dana parce que politique la communication communication visuelle daf ci am solo. Mhm. nañu deuxième critère nous ñu ne choisir un parti boo xam histoire tamit ak troisième critère nous choisir un parti nga xamante au moins am des perspectives dans l'avenir. avenir critères yooyu ko dégagé yaakaar naa chapeau bi le PDS moo ci nekkoon parce que kenn du ko weddi ku ne PDS ni mu ci département bu Bambey ku nekk xam PDS également histoire am ak commune de ku nekk xam na PDS ne tamit yaakaar bulletin bu zone bi ci guubu bi. Mhm. neex wax. Mhm. donc loolu moo nous euh, ñu orienté suñu choix un choix très objectif. ñu jëmale ko ci PDS yalla def nak ci suñu coalition tamit wa deug si wa PDS bokk ci wa aper bokk ci wa rewmi mi ci suma yobone yeboo ne caxar ci donc ñu discuter avec les les les autorités euh, du parti wa deug yalla ñom tamit ñu wuy suñu ci sans contrainte sans obstacle sans condition jox ñu li ñu waroon am yépp pour demee ci élection yi ñu demee ci ñu demee ci élection yi mais bu nekkee ne Ablaye Wade am na héritage Sénégal man dinaa ko revendiquer ndax am naa ci part mhm. bu nekkee ne tamit euh, wax dëgg si yàlla projet politique la bu ñuy porté doonu moon hésité ci bu ñu demoon parti bu mënoon a am sax pour ñu demee ko ci dinaa ko demee mu nekk réceptacle boo xam ne dinañu mën a yóbbu pour ñu am ndam euh, te ndam loolu suñu borom suñu borom def na ko mhm. léegi sa avenir politique euh, si ci tey gagné nga élection locale mais yaa yow yaay nouveau maire de Thiakha mm-hmm. ban euh, lan nan ngay gisee sa ëllëg ci politique bon <laughs> xam naa ne ba nga ay mbóot mais am na lu ñuy wax am lu ñu dul wax nag mais lépp lu mat a wax ak waa Thiakha mm-hmm. du ma ko fanaanoo te wax wax waxuma ko ak ñoom parce que sincérité li ma leen di wax dëgg la mm-hmm. te du ñu ma xaar gauche mu ko gis ma droite lolu jiw moo te jiw te du len ko ji te du massa am tay ni sama avenir politique meun nañ ko mesurer ci ñaari fan sama avenir politique en tant que maire ci ku bëgg gérer une collectivité locale yob ko fo xamantene ni moromam yi ko rawon dam na len kon dama nan 80 ci suma temps ak sama activité politique yëpp ci caxar la koy concentrer ma sañ ma interviewer un jour ma len caxar moy suma parti te caxar nag laa bëgg a faral kon damay daal jël sama jëmm ji teg ko si ginnaaw ne man sama promotion personnelle ñoruma parce que bu ma ñoroon danaa am nu ma defee laata may ñëw impliqué wu ci politique ci caxar kon danaa ut ku ma wéeru wala mu ut ku ma jàppale mais kenn amul benn acteur politique buy taxaw ak yow ne la Abdou Aziz wéeru na ci suma ginnaaw wala soutenir naa ko nangam wala jàppale naa ko nangam ci combat bi mu ma ne sama alalu bopp a samay alalu ñu ma bëgg ñoo xam defuñu politique ak alalu ñu dëkk ci gox bi la ñu demee ci élection yi ndam li nekk ndamul caxar maintenant nag euh, champ politique bi à la kuliyal day chamboulé à la kuliyal day chamboulé mais li ñu bëgg a positionné daal mooy caxar la ñu bëgg a positionné sur orbite mais pas man sama jëmm ji. mais mais Abdoulaziz tey peser nga sa bop ba xam sa poids yow tay tey euh xam nga xam nga xam nga li ngay li ngay représenter li may représenté Maïmouna euh, l'homme l'homme est toujours à la recherche je ne dirais pas de la perfection mais du meilleur. absolument tay jii yaa ngi point 10. tay jii est-ce que nekkoo di rechercher mais Abdoulaziz les spectateurs les internautes sont en train de nous suivre. li may ma bëgg wax li ma li bëgg wax moo mhm. li ñu doon jaxar la suñu doole caxar la encore une fois li ñu doon caxar la suñu doole caxar la caxar fal nañu danañu concentré wu pour liggéeyal caxar li ma la bëgg a tontu immédiatement moo di ñun defuñu focaliser wuñu ci ni ko yenn maire di defee gañe naa il faut que ma transhumer dem ci parce que nañ ko wax rek il faut que ma transhumer dem ci pouvoir pour réaliser dara yooyu nekkul su suma bopp ku ma fay xaar mun nga xaddi buñ la woowee nag bu ñu ma wooyee danañ ko discuter parce que nekkul nag quelque part nekkul man maay décidé. Mhm. dama ànd ak ay nit ànd ak samay nawle ànd ak waa Caxar yépp mhm. ñu nekk aw say. mais mun na dellu ci format de départ bi. Mhm. parce que maire sortant bi ma bi ma gagné. gañewul woon su la bannière de Benno Bokk Yaakaar. alors que bi muy gañee dafa porté woon les revendications ou bien jafe-jafe askan bi ñu fal ko. yaakaar naa fooy mënti dem li nga war a njëkk jiital moo di. man tey ku ku bëgg tey ma bokk ci yow wala ma rallier ñëw ci yow fajal soxlaas caxaar ba pare mm-hmm. ba ma des ci man mm-hmm. man ak sama mbubu kese ma sol ko ñëw mais du ma du ma jiital sama bokk mukk mukk duma ko jiital pour promotion pour nomination pour dara bàyyi caxaar gannaaw xalaatuma ko jomb naa ko ku bëgg ku bëgg caxaar li ma fa def def ko fa mm-hmm. ku bëgg caxaar jox la bopp wala doomu caxaar bi ñu fal ànd ak yow na nga ñëw identifier soxlaay caxar yi ñu am nga fajal leen ko su boobaa nag ay la yooyu dinaa ne ku faj lii bëgg na caxar man ni ma ko bëggee kon ànd ak moom day jàll mm-hmm. mais du ma ko ñuy naxee du ma ko ñuy xëccee bu mu caas naan ko kaay euh, lii yooyu moom dépassé naa ko te wax dëgg sàll nag ndaw laa yàkkamtiwu ma dara suma àdduna yàlla bi ma suturaal ba lii ñëw mm-hmm. su ko mom la gëm te mom lay mësa gëm donc gëm na né dina ma suturaalaat ba leneen. nga am proposition bu alléchante de. mën nga am proposition bu alléchante dañu jékki-jékki rek gis euh, à la une des journaux Abdelaziz Diom maire de Thiakhar li ak li ak li ak li bu boba est-ce que. ça dit que. Mhm. fi mom lu fi way di wax na lèr parce que war mom <laughs> waaw lool lay bañ. lool lay bañ dama ne la <laughs> dama ne la man. Mhm. xam nga néew la dina rejeter ben offre. mais dama laa wax ne la. Mhm. ni ñuy xëcce maire yi bu ñu ko yaakaaree ci Abdou Aziz yi rek bu ñu yeboo dem tëdd nelaw. parce que yàkkamtiwuma dara nag. tey nii gisul xaaratuma ci kenn ci politique ak ndombu tànk boo mënti am. Mhm. nga yoreel ma sama kër. Mhm. xaaratuma nga tabaxal ma kër xaaratuma nga jëndal ma oto. xaaratuma dara ci yow. kon nag ay la yoon su ma goree. su ma goree waruma monee waruma jënde caxar leneen. caxar li ma ko mën a jënde moo di ay la yewén muy président la république wala keneen ak keneen. gis caxar jafe-jafe yi nga xam ñun moom lañ porté ba caxar wóolu ñu jox ñu mu ñëw faj soxlaas caxar su ma caxar joxee cutis ne ma nag ah ay la yëwén yaay suñu maire mais lii bëgg nañ ko su boobaa ma ànd ci ak waa caxar mais bu ñu du ma jiitu mukk soxlaas caxar ci gannaawam lay nekk ku may wër si di nga gis ci sa kanam soxlaas caxar soxlaas ndox mi soxlaas faj bi mhm. soxlaas njàng mi mhm. soxlaas yoon yi mhm. soxlaas daara yi soxlaas jigéen ñi di ko gis ba pare so Abdou Aziz parce que bu que vous mbubu lay sol ci suma cinq ans yi mbubum vous lay don du nekk mbubum parti politique de ma vous de, de awma temps wu jotuk di di di peinture caxar de euh, di ko wëlbatikuwaat di ko na le dede de couleur bi mu am moy vert jaune rouge avec une étoile donc couleur Sénégal la caxar am te man non ko bëgg gouverner non la ko bëgg yoré yoore ginaaw vous kóolute gi ma jox parce que nak duggee fa parti politique mhm. duggee wu fa nguur duggee ma fa ndom tank dom la fa duggee ak lima am ci suma yoroom lima may ci taranga ma jëlan koon te ñom nak duñu ñu ñuy jënd ay gor lañ ay gor yu sat bi ci lañ ku gis ne nak wax deug ci yalla caxar ak résultat yi fa def ak tolluwaay mu dem amna waccu way bi ci politique ba ñu jox ndom tank bobu wala ñu jox doole bobu tay caxar a da na ko jël nak ndax caxar ci rew mi la mais ken duma jënd ken duma xoxtal ken duma manipuler suma bop pour ay promotion personnelle yakarna limay liggéey doy ma as gor laa tuuti damaa doy su ma ci dundee ba dee ba retraité war naa mën a am euh, xel mu dal ndax nag fii plus ngay am ay responsabilité plus tamit coono di la gën di rek ndax nag lii ñuy liggéey dañ ci fas yéene liggéey ko en toute transparence maandu ci alali askan wi yem ci li ñu suñu borom suturaal li ñu am ñu bokk ak askan wi te li askan wi am ñu bàyyi ñoom donc euh, ñi nga xaman passerelle lañ doon def damay dem ci élection yi surtout fois ma nekk maire ma mën a jege parti pouvoir ak wala ma def lii wala ma def lii loolu moom nañ ci suñu bopp tëdduñu sax di ko gent tëdduñu sax di ko gent li ñuy concentré wu moo di caxar am nañ toutes les cartes pour liggéeyal ko ba ñu xam ne seen doom liggéeyal nañ parce que li ma lay wax nag les instruments de financement des collectivités locales yi nga xamante ne nit ñi dañ naan la boo bokkul ci nguur munoo gañe lii munoo gañe lële c'est vrai que parfois lu ci bari ci levier de financement yi day épouser les contours politiques mais nag nañu dem ci principe yi ñu jàngul politique wala ñu jàngul gestion des collectivités mën nañu leen naxe lool mais instrument de financement yi am ci collectivité territoriale critère de base yi ngay yi yi ñuy renflouer yi ñuy renflouer sa ay caisse na ak ci parti bi laa bokk ak parti bële laa bokk mën nga fi tànn ay maire yoo xamante ni mënoo xam ci ban parti la ñu bokk alors que ñu ngi réussir ay projets yu am doole seen ay collectivité locale man ëllëg bëgg naa caxar tàllal suma loo xam ne nga ñu loo xamante ne ni kenn mosu ko parce que mom japp na doomu caxar la kon lu mu fa wara def dafa war a tegu yoon nous rappelons aux, internautes qui nous suivent que nous avons comme invité aujourd'hui Abdelaziz Diom euh, nouveau jeune maire <laughs> de de Nous euh, ñu ñu ñu ñu ñu dellu Abdelaziz euh, est-ce que mën nga ñoo jox cinq points ci sa programme euh, vis-à-vis de de la commune de de de bon lolu c'est très facile parce que. Mm-hmm. Eh, Cahar te buñu ñu duggu dugg fa caxar dañu ko parcourir sonde ko à tous les niveaux identifier ci caxar biñ ko identifier ñu xaj ko ci digg bi ana lan lañ ci mënal suñu bop ak ana lan la lan la nga xamantene ni mairie collectivité territoriale mom moko mën te ci biir collectivité territoriale limu mën mu ay compétences am amna ci li nga xamantene ni du ko mën mais état moko koy mënal lañu mënal suñu bop tambali nañ ko te tek na seen ko lu ñu am bokk nañ ko ak moom ku feebar tànqam lu ñu la ku génn àdduna bëgg a suturaal sa mbokk ci ndénkaaneem pour ñu yóbbu ko Touba wala ñu yóbbu ko feneen tànqam lu ñu ko ku manqué ndox suñu citerne ndox yi ba barki démb mu ngi dugg caxar ndaw ñi ku ci am problème tànqam lu ñu la ku ci am leneen nag leneen tànqam lu ñu la ba démb barki démb bi ñu yónnee citerne ndox dama ne xanaa ñun de dañ ñoo jox volant bi rek nañu nañu gën a accélérateur mais ñu ngi woon ci yoon bi. parce que nag li ñuy def gisuma dara lu ci changé. beneen parti bi nag nga xamante ni état wala ba collectivité territoriale bi commune bi moom moo ko war a gérer la ca des état mën ko koo dimbalee. loolu nag ngay libale ci sa programme génn ci ay axes prioritaire. priorité sur priorité bi ñu am caxar mooy le problème de l' rurale donc moom mooy problème courant ci caxar. mooy sama sur priorité. lu man, mën ak lu ma xam te du nekk lu may caxar mënuñu comprendre 62 villages ba léegi taux d' électrification bi faible euh, ci niveau bi mu toll nii te courant nekk tout un élément de prestige mhm. mais facteur de développement la mhm. parce que économie rurale tey boo demee suñu jigéen yi seen ëmb dugub wala seen ginaar wala seen béy la jàpp ñëw ci luuma Bambey wala luuma feneen jaay mais tey bu ñu amoon frigo mën nañ mën nañ mën yeneen mën nañu am yeneen source de revenu bu ñu amoon tamit jigéen ñu si bëri def nañ buñu amone courant tamit yenn suñu teen yi dinañ ci mëna def ay moto pompe yu nga xamantene ni dana mën a permettre ñu def ay périmètre maraîcher yu tax jigen ñi mëna ko exploiter am très rapidement li ñu bëgg donte alternative solaire mu ngi fi. Mhm. donc courant priorité la mhm. benen priorité bi moy walu wër bu yaram muy santé. santé santé di nga gis commune tiaxar ngay gis bok fa la ko gis. Mhm. jigen wonna lor ba bis bu muy mucc. xamul lan la yor. xamul lan la yor loolu daw suma yaram parce que ñi ma xam xam nañ ne suma yaay matron la jigéen ñëwee na fa nu nekk ñëwee fa façon bu nekk. loolu moo tax nag ma di la ko rappelé te ñi ñi ma bokkal caxar xam nañ ko li ma njëkk a am ci alal oto laa ko jënde bàyyi ko village muy dox ci urgence yooyu. Mhm. li mu évacué ci ay malaat kenn mënu la mu doy. mais problème mu santé moo tax problème mu santé ñu bëgg ci liggéey lu extraordinaire mais en commençant par ñun moo tax dañoo wax ci campagne bi tey wax ko lu jiitu campagne bi ne ñun. danañu renoncer suñu ay indemnité de maire 300000 yi ñuy fay maire man Abdou Aziz bëgguma xam couleur xaalis boobu nu mu mel donc danaa ko renoncer mais la moitié de mes indemnités muy fanweeri junni dama koy jël ma jébbal ko jigéen ñi pour couvrir la santé maternelle parce que bëgg naa ñeenti consultation yi jigéen am bu wanee lool ay la yéwén nag mu mën a waaxu dem ci case de santé wala poste de santé bi te du fay dara ñu may ko ay médicaments basiques yu koy dolli deret ay fer ak yooyu mhm. c'est très facile maintenant ci problème santé ñu rattaché ci nag loo xam ne wax dëgg si yàlla ay léewéen adduna bi fi mu toll mhm. jigéen mënatul war na lor ba pare te du xam lan la yor mhm. du xam lan la yor donc euh, relever plateau médical bi aussi bien ci poste de santé bi ci ñaari poste de santé ñu am mais ci yeneen case de santé yi caxar tey benn ambulance la am tey depuis des années bu takkee tey fay suba loolu mënuñu ko imaginer avec ci yoon yi nga xamante ne tey en pick-up suñu 4 x yi day day da nga koy manip da nga koy manoeuvrer mu soo a jaar ci suuf si. Mhm. imaginez jigéen bu ñu buy bu mat yee 3 heures du matin fan ngay jaar ñu di la teg ci sareet di la indi ci case de santé boo xamante ni bala nga fa egg sa bakkan bi yàlla rek moo ci des. donc santé suñu priorité la. Mhm. maintenant bu ñuy mun naa wax tamit également ci indemnité yooyu ne beneen xaaju indemnité bi nag dañ koy jébbal mag ñi ak donc daara yi. Mhm. parce que droit yi yi yi élèwu nasaraan bi am ba mën a am une couverture sanitaire wala couverture médicale ah donc daara bi tamit. da ko war a am mënoo jur sa doom ñu bokk ndey ak bàyyi kii nga ne dama koy dugal nasaraan kii nga ne dama koy dugal alxuraan ki dugg nasaraan bu nekkee élève bu feebaree directeur d'école am mën ko recommander à l'infirmier ñu consulter ko ak kay malaat mu dem alors que dongo daara bi amul lool ci benn réew ci benn commune ñu yem ay même droit loolu tamit dañ ko bëgg a mais bu ñu ko corriger ba pare ériger ko en pratique pour jox réew mi exemple ne leen nii la ñu war a yore parce que nag égalité ak équité dafa am solo ay principe de base yi nga xamante ni dafa nekk ay principe démocratique donc ñetteelu poñ bi mën nañu wax defi majeur bi ñu amaat également ci commune Thiakhar moo di wàllu mbay mi agriculture donc wax naa wax naa électrification wax naa wax naa santé wax naa mhm. mbay mi mhm. boo xoolee Thiakhar tey euh, ñi fi ëpp tey gerte la ñuy bay jiwu gerte bi bala moo ñëw ñu tawlu tawluwaat te bu ñëwé du bari du baax mais baykat bi ruuj tolam bu gëgënaayewul aw joom mais xelam du dal xelam du dal donc plaidoyer boobu danañu ko def à ce que xat man di jot aw joom à temps mais la solution euh, bi ñuy envisager moy solution bu endogène ñun bëgg nañ vraiment ci ay mécanisme de financement reconstruire suñu bop le capital semencier ba baykat bi bu baye gertem bu baax ci commune xat mu bañ ko jaay mais wala bok bu ko dee jaay mu ñëw indil ñu gerte gi ñun ñu mën ko ko wecc xaalis mu dem bu demee bu bay jot bu amee xaalisam ñëwaat jënd bu amul xaalisam ñu mën ko ko mettre à sa disposition mu bay après mu remboursé ñu parce que loolu mooy li nga xamante ni solution la boo xamante ni mooy solution bu endogène et solution la bu pratique mais bu ñu bàyyee béykat yi ak opérateur yi le ministre de l' agriculture à l' approche de l'hivernage bi passé dafa wax ne nee na opérateur yi indi ah, ko mais loolu gisuma benn béykat wala ba gisuma benn maire bu jiite collectivité territoriale bu nekk si àll bi jóg na ko ñun soxlawuñu gerte mais aw jiw la ñu soxla donc troisième axe agriculture la mais boo nee agriculture di nga ci dugal élevage parce que agriculture dans sa globalité élevage la. Mm-hmm. amélioration des races ñu nar ci liggéey liggéey bu am solo Bambey ngeen dëkk mais xam ngeen ne tey ñi ëpp tey ñuy takk charrette di ñëw ci commune bi di fi liggéey dëkkuñu Bambey ci àll yi la ñuy jógee suñu charrette yooyu mooy suñu oto. mooy suñu 4 4 mooy suñu lépp mooy suñu camion suñu saret yooyu ci la ñuy tiiree suñu ay revenu mais saret bi dañ koy takk ci ab fas te léegi pour nga gis fas bu baax dans la commune c' est tout un problème loolu nag dañu jaxase darete fas yi ba sang bi di daw ñun nag ñu fas yéene revaloriser waat champ euh, deretu fas yooyu pour indi fi ay pourcent yi nga xamante ni suñu programme boo demee di nga fekk ñu fas yéene jël fanweer ay wajan si si commune bi fexe ba di leen boole ak fas yu baax wala ñuy def insémination artificielle pour que au bout de cinq ans ñu gis ay résultats donc loolu ci wàllu élevage bi la mhm. fas yi mais jur gu ndaw gi tamit mhm. donc beneen bi mooy wàllu éducation gis nañ ne taux de déperdition scolaire dafa am solo mhm. éducation nag nit ñi dañuy viser ji directement élève bi euh, wala salle de classe yi ak yu demee noonu mais naam na fekk nga ne fa jàngalekat bi ñëw sa commune boo munta saytu ci condition yi muy yi mu dëkkee ak condition yi muy exercer son travail mhm. ndax méngoo na condition yuy tax demee bu man a am ay performance soo ratee loolu bu la neexee nga duy say classe ba mu fees bu la neexee nga peinture say classe ba mu rafet mais doo résultat donc lii fondamental bi ñu bëgg a jël moo di jàppale enseignant commune bi mhm. mais également capacité leen loolu avant may bi ma nekkee candidat j'étais parti au ministère de la communication et de la culture uniquement pour am suma ma mère ak jàmm te nekk ko boobu loolu laa doon ñaan pour am ben centre de lecture et d'animation culturelle parce que enseignants tamit dañ leen di dañ leen wara accompagner mettre leen dans de très bonnes conditions yu tax wax deug ci yalla suñu xalé yeneen ñi bëgg nek nekk enseignant bu ñu ñëwé nek enseignant ñom wax deug ci yalla ñu mën leen permettre ñu capacité sen bopp mëna dem ci yeneen yeneen ci administration wala dugg ci yeneen corps wala ñu def ci yeneen concours jàll wala sax na bu ñu bëggee yem ci njàngale mi kese ñu am tous les outils mhm. yuy tax bu ñu sori pour ñu mën a capacité seen bopp sant de lecture boobu bu ñu ko amee insha allah mhm. danañ ci rattaché benn salle informatique mais danañu également bëgg def benn salle de conférence bu mag mhm. pour que ay session de formation man di am ay conférence man di am yoo xamante ne nii ñëpp dinañu yem le même niveau suñu jugee nag ci jàngalekat bi soo ñëw ci élève bi di nga gis élève une école wala daw ndax amul fourniture li gis école wala daw ndax dafa feebar donc sur le plan médical assister à yi tamit te ni koy mën assister des consultations de masse ni koy école des consultations de masse au moins que le directeur d' école xam élève bii suivre wala du du wala en tout cas résultat baaxul lan mooy problème bi fondamentalement ndax problème mu feebar la ndax problème familial la këram la wala yu demee noonu donc facteurs yooyu c'est des facteurs yi nga xam ñun sénégal dañ koy négliger mhm. mais dafay déteindre sur la sur sur les performances de su yooyu nag bu ñu ko defee jàppale élèves yi euh, su ko defee résultat mën na ci mën na ci mën na ci suivre mhm. mais bu ñu waxee élève bi mooy tàmbalikaay bi mais étudiants yi tamit ñu ngi ci étudiants yi mhm. à Dakar man li ma dund ba léegi daanaka étudiants yu bari moom la ñuy dund ce ngay dem sa tuteur daanaka doo am tuteur euh, ngay vivre des moments très durs ay conditions yoo xam ne du la permettre mukk nga jàkk ne université bi yow lañ ko tabaxal. donc maire commune de bi ñu fal di Abdou Aziz euh, efforts pour accompagner étudiants accompagnement étudiant nag si au delà de ces conditions euh, de vie dans le campus universitaire étudiant bi war am accès à l'information parce que nous sommes bari. concours dina am alors que c'est des c'est de très bons étudiants duñ xam concours bobu ñu ci bari ay opportunités yu bari dina am duñ ko xam ñu ci bari war nañ leen capacité au cours de leur formation pour ñu am ay stage ak yenen ak yenen té duñ ko am ba buñu am sen diplôme dañ nan am sa diplôme ba paré di taxawal yooyu nag danañu ko def parce que euh, am nañ concevoir nañ support yi yi ñu war dem yépp ci communication pour jallalé xibaar yi pour mën a taxawal ca caxar ci côté boobu ba nga xamante nii képp ku soxla information danga ko am à temps mhm. mais tamit danañ teg des point focaux yi nga xamante ne ni lépp luy examen ak concours ak yeneen yi ñoom ñooy xel di jaarale jaarale ko ci média bi ci groupe WhatsApp yi ak yeneen ak yeneen pour informer suñu étudiants yi mais accompagner leen même ci préparation concours yooyu mhm. donc loolu mooy li nga xamante ne ci wàllu éducation ci lañ nekk bu ñu waxee nag bu ñu waxee électrification rurale wax agriculture wax santé wax éducation dafa am ñoo xamante ni bawol ñoom ñoo mujjee kër yi mhm. muy soxna yi mhm. boo demoon tey pré campagne ak campagne yëpp électorale boo demee ci dëkk yi pour nga gis un jeune mhm. de 30 ans en tout cas de 30 ans ou bien de vingt ans à 50 ans dana jafe nga fekk ko ci dëkk yi ñëpp Caxar est frappé par le phénomène de l'exode rural jigéen ñi rek nga fay gis jigéen ñi ñoo dese kër yi ñooy njëkk yeewu ñooy mujjee tëdd euh, ñoom la ñu bàyyeel njaboot léeg-léeg da ngay woo borom kër mu ne la ah lijjantil ba ma ñëw kon kooku jàppale ko d'abord pour alléger coono bi muy daj ci këram day am solo coono fondamental bi nekk nag euh, wàllu liggéey bi mhm. wàllu liggéey bi da ngay dëbb da ngay da ngay da ngay caxar ba léegi xale yu ndaw yi da gis élève bu war a wàcc jàng ay leçon nga yen ko ak wol mu dem dikk dox trois kilomètres pour wolu ci mhm. parfois day guddi seen yaay taal ay làmp di leen gàttandu nga ñëw élève bobu du jàng som day dem tëdd nelaw mhm. donc buñu alléger jigen ni sen walu liguey mais également capacité leen former leen bu baax a baax nag formation bobu tamit on a une formule mhm. bo xam day différer ak li daan am parce que da ngay gis commune yi mairie yi ne formé naa groupement tel formé naa groupement tel en transformation céréale mhm. mais bo demee ba caxar tay nga former ben jigen tay ci sankal ak tiéré bu ko defaree kan la koy jaay mais caxar ku fa soxla tiéré dang koy defaral sa bopp ku fa soxla sankal dang koy defaral sa bopp kon boo capacité jigéen bi ci formation boobu te amoo intelligence su créer des canaux yu mën a jaarale pour que tey sachet cere bi fi muy jare ñaar fukk nga mën ko yóbbu fu muy jare téeméer. Mm-hmm. retour financière bu ñëwaat ci moom kon de amoo amoo dara loo ci yokk ñun nag groupement yi ñu fa fekk danañ leen identifier parce que bu ñu jëlee service ak jàmm dañuy def à tout le rôle corps yi fa nekk yépp incha allah mm-hmm. danañ leen dalal. ñi mën a déplacé wu danañ déplacé wu ñun ñi mënut a déplacé wu ñun équipe municipale dana dem fekk leen. Mhm. identifier def diagnostic identifier seen ay jafe-jafe joxe ay orientation mhm. te ci orientation yi ñu def di définir suñu axe programmatique moo di mhm. jigéen ñi danañ leen danañ danañ xool ci yan formation ñi ñu weesu ci yan formation lañ leen formé jigéen ñi ci yan structure la ñu tënku ci ay GIE GIE dañ koy wax nii rek ne rek groupement mais amul benn groupement bu valable caxar ah. amul amul ah ñun gis nañ fi ay photo ay vidéo non groupement d' intérêt économique groupement d' intérêt bon groupement boo ci yemee rek boo nee GIE. Mhm. GIE amul caxar boog bu valable sax mën nga ne nag groupement parce que groupement littéralement boo koy définir mooy ñun ñii daja nañ def nañoo groupement. Mhm. mais groupement d' intérêt économique moo tax ñu naan groupement. Mhm. GIE da nga koy créer mu am ay statut am son INEA am son registre de commerce. GIE boobu pour mu exercer ay activités am dañ ko war a formaliser dañ ko war a dem déclarer ji ko impôt mu nekk une structure légalement reconnue mu mën a compétir nag ci ay marché public sax mais mu mën a demande également ay agrément euh, yenn structures yu mag yi pour exemple xar bëgg nañ dajale jigéen yépp def benn groupement d'intérêt économique communal ñi ñu formé ci sànqal ñi ñu formé ci araw ñi ñu formé ci leneen ak leneen ñu leen ah ay la yowee ni yéen côté bi yéenay defar sànqal yéen côté bi yéenay defar cere yéen côté bi

ay fra mhm. utul ko lépp ba mu légal nga xamante ni tey bu demandé agrement damay bañ wax publicité mais bu mhm. demandé agrément ci yenn grande surface yi mhm. danañ ko agréé parce que xam ne la produit est de qualité fi mu war a jógee jógee na fi waaye fi ñu ko war a conditionné condition dana loolu nag dana wuute maintenant fi ngay jaayee cere cent franc ak fi ngay jaayee paquetu cere mille franc su boobaa nag maintenant xaalis boobu day ñëwaat jar na nee naa leen jar man dina ma jaral suñu mettre loolu en place jigéenu caxar bu ñu amul oto mu jënd leen oto pour loolu pour nous mën di ces produits, du coup di ko yóbbu réewu taax ba ci dans la sous-région parce que on a identifié bu de a baax ont piste yi nga xamante ni tey ñoom lañ ko créé ak un très bon circuit mën na fa jàll. Mhm. donc pour vous dire que mhm. collectivité locale yi gars dañ naan amuñu ressources. Mhm. mais yàlla bindul nit bàyyi ko ci environnement bàyyi ko noonu ak loxoy kese mais ñun dañuy ragal a fouetter suñu intelligence. dañuy ragal a avancer dañuy ragal a changer paradigme

pré campagne ba campagne né nañ ma sax bi nga falo la ndox bi ubi quoi man leen alhamdulilah parce que nak ki sonu ci jënd ay seetam mu ndox jël alalam yëpp def ko ci campagne bu gagné nak ndox mi war na ko sargalé sax au moins tay danañ la danañ la danañ danañ danañ la danañ la noppale tijji robinet yi donc robinet ji na ci xar am ci problème ndox mën nga ko catégoriser dañu am problème ndox ndox bu doyul dañu am problème ndox ndox bu nakari ñaar yu dañ ko am mais tamit dañu am problème ndox depuis quelque temps ndox bu cher ak Aquatec yooyu nekk ay problème yi nga xam ne c'est vrai que c'est graduel mais nag danañ ko identifier te taxawaay bu ñu ci war a taxaw danañ ko taxaw danañu def le plaidoyer pour que Caxaar ab amaat beneen forage bu mag bu ñu ci jógee dinañ dinañ def interconnectivité parce que forage yi dañ leen war a interconnecté ba nga xamante ni débit ku ci am début bu ëpp mën a dimbalee sa morom début bu faible bi ñu mën a pomper ndox bi mu mën a desservir zone yépp mais ñu ngi ci programme tamit également l'équipe sortante commencer on réaliser ay mini forage on lance dinañ continuer ci programme Mais mais mini forage également il faut que nous revaloriser valorisons. Mm-hmm. parce que fait des mini forage kese pour y ci root ndox bu alors que nous avons ci définir périmètre maraîcher pour nous ñi di bay sens. donc danañu dem ci sens pour euh, faire ndox mi Nous ñu dem ci mini forage pour faire un bi mais également. wax dëgg si yàlla ñu ñu jooytu fu ñu mën a jooytoo nag pour que ak waa teg bàyyiwaat ndox mi ak ñi ko yoroon. Mm-hmm. doomu caxaar yi ak doomi dëkk yi nañu yor seen ndox mi ndox mi dafa cher ku doon fay facture ndox 2000 francs dem di fay facture ndox 12000 wala 15000 francs ci bawal ni mu mittee loolu du yërmande. Mm-hmm. donc encore une fois caxaar problème mu ndox boobu am na ko am na tamit li naan ci luy baax la fenn seddul. Mm-hmm. mais bu ñu doon étaler tey caxar jafe-jafe yi muy dund da dañu fa am li nga xamante ne nii ñi ñu ko ñu ñu ko yemleel bariwul muy ay ay kër kilifa diina ay seexi sëriñ Touba ndax Bawol gi nag Serigne Touba def na fi percé ay seexam ay foyer religieux yu am doole yi nga xamante tey li ñuy séddale ci réew mi gisuñu ci seen bopp. wala ba bu ñu fee gis seen bopp individuellement la sëriñ bi xam ne xam na ministre tel wala am na connexion ci président wala am na jooytu mën na jooytu ci beneen moroomu sëriñam pour mu waxal ko président mais caxar tey dafa am ay dëkk. yoo xam ne ay dëkku diine la su ma cité mun naa mun naa naa fàtte. Mhm. mais tey boo duggoon Kër Seer tey. Mhm. dem Màkka Baas dëkku diine la. nga dem Njaakaan muy Daaru Afia muy Kër Sañ Salaam dëkku diine la. Mhm. nga dem Ngàcc dëkku diine la. nga dem pay Paypay gi ma jógee dem ci guddi dëkku diine la. nga dem Yarwaay dëkku diine la. nga demaat zone yu bëri dans la commune ay dëkk diine la. te ñooñu li ñu war a am parce que nag diine. mooy li naan ay nœud culturel mhm. mën naa bañ a bokk ak yow waasu mën naa bañ a bokk ak yow parti politique mais ñoo bokk benn sëriñ bu ñu sukk mhm. te sëriñ boobu tey mën naa am pouvoir d'influence bu tax tey sama coow ak yow du sori mhm. wala sax du am mun naa am pouvoir d'influence buy tax coow du tàkk fenn loolu nag dañu leen war a dooleel joxaat leen seen gëdd mais jàppale leen également surtout non seulement ci seen foyer religieux yi mais surtout ci seen daara yi ak yu demee donc loolu tamit plaidoyer bu ñuy wax pour que li muy def ci këri diine yi mu bàyyi ci xel waa commune Caxar bu baax a baax a baax mm-hmm. donc loolu tamit problème mu jeunesse bi tamit c'est une question fondamentale mm-hmm. parce que particularité bi ñu am yaa ngi naan léegi wër nga wër nga ki fi nekkoon ndomb wala ñu fi nekkoon mm-hmm. mais démarche yi moo bokkul politique bi du benn niveau yi tamit tolloowul ay li yoon en toute humilité bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi nga xamante ne nii ñu ngi ñu def euh, pré campagne mm-hmm. war a élaborer suñu axe programmatique il fallait identifier mm-hmm. tous les acteurs cakar boo fa demee tey ñun suñu jaspora caxar Dakar lañ nekk mm-hmm. ñun amuñu jaspora bu bari bu nekk Europe wala États-Unis wala yeneen ak yeneen mais tey ñun suñu ay immigré ñi ci bëri tey Dakar lañ nekk. ñooñu boo dee concevoir un projet politique te boolewoo leen ci mën nga échouer ci lu bari moo tax dañu dem mobiliser wu dem Castor. dem syndicat dem Yoff dem Colobane waxtaan ak ndaw ñi waxtaan ak ñoom ñooñu boo fa demee da nga gis nga xam man ñoom ñoo bokkoon classe. Mm-hmm. wala après ci man lañ topp dañoo teel a bàyyi jàng dem di liggéey liggéeyu doole li tax ñu bàyyi jàng du nilaar mm-hmm. mais dañuy dund ak seen xamante ne nii mënatuñu ko seetaan toog ci banc école yi mm-hmm. ñu dagg jàng dem Dakar di liggéey liggéeyu doole moo wax leen ne leen nag. liggéey doole dëgg la baax gaa baax na parce que dana la fajal lépp waaye dafa yow da koy bàyyi wala mu bàyyi Donc il, fa il va falloir nous rôle très rapidement une bonne transition pour que, alternativement, ngeen mën a jóge ci liggéeyu doole bi ñi ci bëgg a dem ci leneen am ñi nga xamante intégrer intégré nañ ay corps de métier amna ñi nga xamante ay commerçants lañ même bu nekkee ci feug jaay bi mais amna ci chiffre d'affaires énorme am ñi nga xam ñu ngi topp ci seen kaw mais kenn identifié leen catégorisé wuñu leen ñun ci loolu lañ jëm ak ñoom bu ñu installé woo ba toog tuuti mhm. danañ dem dajale suñu diaspora boobu waxtaan ak ñoom identifié leen mhm. da ngay gis ndaw boo xamante ne tey capital am kese moom lay liggéeye mhm. cinq cent mille am un million ci lay liggéeye alors que tey bu amoon ligne de crédit mën na gën a gaaw souvent du ko xam du xam ne banque bi ak li muy liggéey banque mën na ko lebal xaalis bi du am benn garantie du am benn sécurité du ak ci structure bu légal bu ñu nekk kuy tax mu mën leen appuyer ak ay ligne de crédit mhm. loolu ci leen jëm mais solidarité bi am war a am seen biir mhm. caxar li mu am ci ay ressortissants Dakar tey bu fa nit soxla woon tey 10 millions waa caxar bu ñu cotiser tey defal ko ko mais noonu ñu soli noonu war a solidarité seen biir tamit la ñu war a solidarité mhm. ci seen dëkk tamit caxar depuis depuis depuis su ma yeboo ne depuis sept ans yi fii le maire sortant nekk amul ambulance bu baax te bu neexoon tey waa Dakar ak bu ñu leen orienté woon ci loolu dañ mën nañ jëndal tey suba suba suba cafar ambulance ñun nag cordon ombilical bii lié yaay ji ak doom ji ñun la ñu fexee defaraat ba mu jekk mm-hmm. ba nga xamante ni yaay ji dina dundal doom ji mm-hmm. waaye yaay ji tamit dina mën a porter espoir ci ay doomam moo tax tey suñu campagne yaakaar naa raar ngay gis mm-hmm. campagne locale sa diaspora mobilisé wu di la cotiser di la jàppale ci seen campagne te xam nañ ne man li ma song mun naa xam nañ ne li mu mu bëgg dem mun naa fa dem mais ay la yéwén ñoom ñooñu dañoo dajale seen ay alal ñëw dimbali ma ko donc ma leen di jaajëfal ñi nekk Dakar yépp mhm. ak ñi nekk ci yeneen régions yi nekk ay ressortissants Caxar mhm. wax dëgg si yàlla jàppale ñu bu baax a baax quoi mhm. donc jàpp nañ ci campagne bi euh, mais nag seen dëkk lañ jàppaleel mais seen doom également euh, la ñu jàppaleel quoi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñépp nag responsable yi nekk Dakar yépp Euh, ak fu ci way nek rek ñu ngi lay sante bu baax di la gërëm di la wax ne caxara ngi ni nañu and ñun ñepp tabax ko quoi. Mm-hmm. donc lool tamit problème mu ndaw ñi. Mm-hmm. lool tamit ci axe programmatique yi la. Mm-hmm. Euh, donc de manière avancée dal xamna ne. pas à pas di nga ñu suivre parce que lool lañu fassiyene def. euh té duñu priorité bi nak tamit fakana naa la bonne gouvernance parce que tamit wax nañ wax nañ wax nañ priorité yi mais dafa am laltaay. dafa am ci lokoy tek bo amé yene bu rafet ci axe programmatique. te amul laltaay amul cëslaay bi da ngay faussé mhm. raar ngay gis tey xanaa yéen journalistes yi sob ngeen di gis commune voté budget ngeen xam budget bi ñaata la mhm. tey caxar boo fa demoon tey bu ñu dee téeméer quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi xamuñu budget commune caxar ak bu jot ñaata la mhm. te un pour cent bi koy xam condition yi c'est-à-dire dañoo nekk ci conseil municipal bi sax xaj na moo tax ñu di ko xam ñun on va ñun dañu bëgg a dañu bëgg a régler sa problème là définitivement moo di lan

dañ leen joxaat compte administratif ku bëgg a xam alalu caxaar bi ñu ma dénk ñaata la ñu ma nattal ak nan laa ko yore doo sori. da ngay dem ci ab chef de village mu defal la copie nga yóbbu fu la neex expert bu la neex nga jox ko ndax xool alal ji alal ji ñu ma dénk ni ma ko yore baax na wala baaxul. Mm-hmm. mais di leeral tamit parce que du ñu toog ba cinq ans jot ñu naan lii la ñuy lii la ñu lii la ñuy def lii la ñu defoon déedéet des bilans à mi-parcours dana am. Mm-hmm. dinañ xool le calendrier par rapport ak charge bi conseil municipal di am. nan la ñu aménager pour que ñuy daje ak askan wi mais daje ak askan wi jaarale ko ci seetu village mais jaarale ko ci kilifa aada yi ak euh, kilifa diine yépp pour di leen wax kat ay la yéwén li ngeen ñu dénk ak projet yi ñu am fii la toll lii lañ ci réaliser kon mébét yi lañu am ñu xam ba ba ñuy jeexal suñu mandat dara du ump kenn su boobaa ñun ñëpp danañu mën a porter suñu bilan wala ñu rejeter ko loolu moo di yoor ci leeral ak ci jub ak ci wone ne li ngeen ma jox. maandu naa ci te mu ngi noonu donc démarche boobu la ñu bëgg a am ndax moo war a nekk nag yu programme ak axe ak priorité yi ma la wax yépp quoi soxna Maïmouna en tout cas un programme très très alléchant euh, wax na waxi bonne gouvernance wax waxi électrification rurale santé, agriculture, élevage, autonomisation des femmes. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est euh, le point sur, l'éducation. Donc, euh, on a pris note, Abdelaziz, et on compte bien vous suivre. D'accord, ça euh, On compte bien vous suivre parce que... ñun ñooy vaar ñun ñooy au Bambay. Euh, TV l'offre TV, wax day archives de da dans quelque temps Inch'Allah, on va vous retrouver à Thiakhar Inch'Allah. Euh, ou bien vous serez encore invité sur ce plateau euh, ñu nous allons siwaat ci li nga ñu euh, on va on va faire le constat avec vous donc ce dernier mot Tay ah déjà dafa jeex <laughs> ça allait très vite hein. donc ce dernier mot mhm. moi di sant waa Thiakhar yépp mhm. sans exception mhm. di leen wax ne man Abdou Aziz mhm. laajuma baatu caxar pour régler ay compte mhm. aw ma fa noonu mhm. kenn utalu ko fa te duma ko utal suma bopp wax naa fi léegi ne adversaires yi dimanche la ñu yem mais ñëpp ci kàttanu yàlla bëgg naa ñu nekk ñëpp suma njaboot man mu ndaw mi ma nekk seen fal mais nekk seen taalibe mhm. ànd ak ñëpp liggéey tàllal naa loxo tamit ñëpp sans exception mhm. amul dëkk bu ma voteel ak dëkk bu ma voteelul amul nit bu far ak man am nit bu farul ak man ndax nag mhm. mbir mi bariwul ñeenti candidat lañ gaa waaye nag ñëpp ci même mbokk yi lañ koy wut kon allah kulli aal ñii di lañ farfale ñii di lañ farfale donc di jaajëfal waa caxar di leen ñaan ngeen ñaanal caxar d'abord jàmm ak xéewal ngeen ñaanal ñu tamit ñun mission bi ñu investir ñu mën ko remplir ak beaucoup de succès. Mm. mais mu am njariñ bu baax a baax ci askan wi dañ naan ma yen bi yàlla na oyof gaa yàlla na oyof yàlla na la jig mais yàlla na jig tamit waa Caxar. Mm-hmm. yàlla na jig waa Caxar donc di remercier également équipe bi ma àndaloon. Mm-hmm. nga xamante ni c'est un parcours sans faute. Mm. nga commencé déposer sa sa sa sa sa sa candidature amul benn erreur amul benn faille ak ku gis contentieux bi ci lalu yépp kon équipe boobu. dama leen di remercier bu baax a baax. di leen remercier tamit waxoon naa ko Momadou yaakaar quelques années. que lii ngeen taxawal nii média de proximité la. ak loolu moo xew. média de proximité la mais facteur de communion la et de cohésion sociale dina boole dina jokkalante tamit ñu bari. dana woon nit ki ne lii nga bokk ak diw. loolu lu am solo la donc dañuy ñaanal Bambey TV tamit mu gën a yëkkatiku ba ci kaw ba vraiment. nu ngeen fu télé di tollu ngeen tollu fa quoi lolou tamit euh, dañ leen koy dañ leen koy ñaanal di remercier nak wa Bambey mhm. su ma nee Bambey Bambey département parce que wax deug ci yalla sentir na le soutien de tout le département mhm. ay nit ñu ngi passé fi Bambey di ñëw di mo ndokkale mhm. ay nit ñu ngi joggé ci département bi feneen di ñëw di mo ndokkale té lolou ay la yewen ci suñu xel mu gatt rek ak suñu yéene def lu bax xañ na lañ ko séx ak ñom parce que mbir mi wuñu ko caxar kessé lepp lu ñu gis ne fii war nañ fa mën a dugal suñu loxo te am nañ ko même bu nekkoon dañuy mélange suñu bopp tamit danañ ko def parce que caxar moo ñu ko moo ko département bi moo ñu ko jaral mais caxar moo ñu ko jaral nee naa la lambay laa juddoo am naay mbokk ngoy sama kër maam am naay mbokk ndàngal ma am naay mbokk ngoogom am naay mbokk reefan am mbokk mbaaba garage am mbokk te ñoom ñëpp ma manifester seen soutien mm-hmm. mais des citoyens également de caxar ñoo gis ne lii lu baax la lii lu ñu am yaakaar la tamit ñu ñëw jàpp ci ba ñu réussir cette mission la ndam lii wax naa ko caxal seen ndam la mais man sama ndam c'est dans cinq mm-hmm. bu ñu ma waree évaluer le bilan bu mm-hmm. boobaa nag dinañ talal suma loxo ne ma am nga ndam bu boobaa mbaa duñ la fi woo daw man ñi ma xam ñëpp xam nañ ne sama heure wax jox na <laughs> xëy na nëbbul naa sama bopp lu yàgg mais ñi ma xam xam nañ nag sama heure wax jot na euh, te bon li ñuy wax xam nañ ko mm-hmm. maîtriser nañ ko amuñu benn jafe-jafe caxar gii ma jàkkaar lool keesam yii mu ñu nar a tegal mu néew mu bari amu ci dara lu ñu teg suñu bët xanaa kay luñ ci dolli te gëm naa ne li ñu ci defagul caxar bu doon cotiser pour delloo ñu ko par weer dina jafe trop ndax li ñu am yépp nag jox nañ ko caxar te dañuy continuer également di ko jox ndax pare guñu ak moom kon nag euh, lii ñëw suñu kanam mën nañ ci rafet njort bu baax a baax kene euh, luy rafet lay doon et luy jur ndam lay doon quoi en tout cas vous félicitez encore parce que vraiment disney nañ ni amna lu mbolo lu takk lu sa affiche j'ai reçu des appels venant de partout d'anciens camarades de classe de collègues ñeppama wo machallah présentation bu bu présentation bu am donc euh, lépp daal lu ci lu ci lu rafet loo xam wax nañ ci wax nañ dans 5 ans euh, espérons que nous serons là encore pour faire le bilan avec vous euh, di remercier mbokk internautes yi ñuy seetaan TV on était avec Abdoulaziz Diom nouveau maire de Thiakhar nouveau jeune maire de Thiakhar suis <laughs> là-dessus tellement que sénégalais yi fu jeune mairie yi lañuy lañuy a am exclusivité bi exclusivité <laughs> avec avec avec TV machallah euh, parce que euh, comme je j'ai l'habitude de le dire l'impossible devient impossible avec Bambay TV euh, ñu ngi ñu ngi rendez-vous dans dans 10 à 15 minutes avec un autre responsable politique inchallah euh Maïmouna Sidibé et nom Politique vous remercie merci beaucoup